mooy def ñëwal ñu dem naa illa daa daaru salaam seeti baro erafaane ko mala te bëgg nooy def ñëwal ñu dem naane ila daaru salaam seeti baro erafaane gaañi ku ci mara dem naa ne ila daaru salaam seeti ah. wal baharu aqiqaati ñoom am nañ ci sewal ku ca mos dooto xaaraane ko martaba ganaan ah. ñawal naan masarib bay sëriñ Omar naan leen naan daale masarib bay sëriñ Omar gaañi leen te naan daale baaru erfaane ko mar te bëgg nooy def ñëwal ñu dem naani illa daaru salaam si baaru arafaan murid yi mel ni man nañu seeti Sëriñ Basiru murid yi mel ni man nañu seeti Sëriñ Basiru laa rayba laa sakka fiihi baaru arafaan xoomarate bëgganam nooy def ñëwal ñu dem naane ila daaru salaam seeti baaru arafaan maa ne sikkul téegam soo teewee ci sunu sëriñ bi say aajo day faajo xamalel loolu dem naa ne ko marata bëgg na nooy def ñëwal ñu dem naa ne ila daaru salaam seeti baro bi mag ñaange yesalu si ndaw ñaangi sëriñ bi nañu baax mag ñaange yesaloosi ndaw ñaangi sëriñ raw ci xarnu bi bu dem fen da xaaraani ko marte bëgganaan ah! ñawal ñu dem naani ila daaru salaam seeti baro يا سيقان أباسر يا سيقان أباسر أبا الماء والناسير قبل سنتيل مين نور ألفاني قمر تبقنا نوي دفي نيوال نيو دمناني إلى دار سلام شيخي بارو الألفاني تيا دمام عمر تيا Omar ndaw Kunda Faaro ah, am Omar yaa yore xilaafa gi yaay suñ Seyku Tijaani Omar tebe kanam nooy def ñawal ñu dem naani ila Daaru Salaam seeti baro erfa Basiru sa baay gërëm na la ak sa yaay ak say xalifa bi sa baay gërëm na la ak sa yaay ak say doomi baay ñëpp def nga leen sëriñ loolu wér na xam naa ndam yu ngi nañu fees a fees waari purooti nañ ndam yu xol yaa ngi nañ ndam yu xol yaa ngi nañu fees a fees sanjaali rooti nañ ci nañ ndabi xol yaa ngi nañu fees a fees buñ jombaa tooroo ci nañ ndabi xol yaa ngi nañu fees a fees ak Casamance roo ci nañ ndabi xol yaa ngi nañu fees a fees ak Gambia roo ci nañ ndabi xol yaa ngi nañu fees a fees waa Mali roo ci nañ ndabi xol yaa ngi nañu fees a fees Ndakaaru roo ci nañ ndabi xol yaa ngi Ndakaaru Ndakaaru agsi nañ ndawi xol yaa ngi nañu fees a fees sëriñ bi sara seenu am nuuru erfaani komal de bëgg na yow ñëwal ñu dem yooyo ila daaru salaam seeti baalu erfaani kon kay sant laahu rabbana ma kanam ñëw ñëwal ñu dem salaam seeti baru ermaani naw ca baay moom ca doom li gis mu daan jëfoo jox nañ ko sëñ Basiir ndaw te doy na waa daaru saxiixatu Muhammad tariixatu Ahmad xaqiiqatul amadir raajal borom daal. loo am ngeen sëriñ bu doy waar muy nit ku fees te lasaraas moom mooy imaam bi lasaraas kay borom daal. shariatul muhammadi xariqatul amadi xaqiiqatul amadir raajal borom daal. dama ne xarit bi ma ñëw digal laam daaru salaam mu doy leen buñ leen ci gay jatee leen feneen fu daaru shari'atu muhammad tariqatu ahmad haqiqatu ahmad dama ne xarit bi ma ñëw bu leen di jaay nga dee leen beneen ko du daaro shari'atu muhammad tariqatu muhammad haqiqatu muhammad la ñun dafa ne yónneen ni garam na la Cheikh Tidiane garam na la way ba may da silsila def la kawsu sam daana yónneen ni garam na la waaw waaw garam na la way ba may da silsila la kawsu sam daana yónneen ni garam na la Cheikh Tidiane garam na la way ba may da silsila def la kawsu sam daana yónneen ni garam na la Cheikh si jàngal naa loo ko may silsila wa bakal maxamdaane ma mawti ay bayit lil cheikh xalifa Cheikh na ko doon bu jooti la ci tajwiri yàlla yeneen gërëm na la gërëm na la yaata may la silsila xalla xawsu samdaane way dem ko jox leen ko Cheikh Ndaw jar na sonn sallaaw nde xam na bay ëllëg Cheikh Falaahu Rahmaano yeneen na la Cheikh Tijaan gërëm na la ko may la silsila xalla xawsu samdaane hadal xasiidatu man kaana qiraa'atahu walaa يرزق في الدنيا والأخرى Cheikh Tidiane gërëm na la la ko may silsila fal na xawsu sandaana ñam jox na suñ borom ñooy jiitu beta bimil waran beta wa jannati mun ci bàyyi man sooro yéen gërëm na la شيخ جان كرن على ضوء غير سلسلة صلى قوس صمدان هذا القصيدة من كان قراءته ولا هو يرتق في دنيا وأخرى ينزل كرن على شيخ جان كرن على ضوء غير سلسلة صلى قوس صمدان ينزل كرن على شيخ جان كرن على ضوء غير سلسلة def la kaw su santaane. yónneen gërëm na la. Cheikh Tidiane gërëm na la ndaw ba may la silsila. def la kaw su santaane. bàyyi Habibu Ndaw. xalifa Seydi Maala yaay gayaar yawmal qiyaamati. Seydi Baye Mansoor. yónneen gërëm na la. Cheikh Tidiane gërëm na la ndaw ba may la silsila. Tebla kausu zamtana Sani sani te kuy kuy daje Yay yi te desen hele ma Jok na jina lam yam baru Khalifa yaw la nyam wala Yene na garam na la Shati jan garam na la Ndawo ba mai la sinsila Tebla kausu zamtana May na jina te jang tebi Angere bi tuyi ya ya jove yonen De kong fidel Khalifa bayi mansoro Yene na garam na waaw tijaan na nana ndaw ba may la silsila walla xaw su sandaane dama ne gëj naa ci jant bi ak weer bi di yàgg suuf te yónneen di ko fi dem xalifa bàyyi man soo yónneen gërëm na la Cheikh Tidiane gërëm naa ndaw ba may na silsila dem na xaw su samdaan dama yónnee ne gërëm na la Cheikh Tidiane gërëm naa la ba may na silsila dem na xaw su samdaan yónnee gërëm naa la Cheikh Tidiane gërëm naa la waaw ba may la seen seetal la xaw sam daane mbay na gëm naa la gëm naa la doy loolo la Cheikh Tidiane ba may la seen seetal ñu bàyyi Cheikh tabal ñu xaajana baaxil waano yeneen gërëm na la Cheikh Tidiane gërëm naa la woo ba may la silsila yem la xaw su santaane gëm naa la gëm naa la doy loolu man ñu bay Cheikh tabal ñu xaajana Cheikh Fatahil waano yeneen gërëm naa Cheikh Tidiane gërëm naa la kaw ba may la silsila dem na kaw suuf sam daane dama ne dem toog na suy si borom mooy jiitu betta bi li wax ni taawun jannati mu ngi bàyyi man soo gërëm naa la Cheikh Tidiane gërëm naa la ba may la silsila la xaw su sam daane wali yu laa de way